العالمين خلافة ملكية حلى آدمي ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار الميامين وعلى جميع أنبياء الله والمرسلين السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته mbokk yi ñuy suivre ci seen chaîne bii 24 ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara ci weer wu tedd wii di shahru ramadan al mubarak shahru rahma wal maghfira wal inaba wal tawba wal irq min an naar wal fawzi bil janna nekk weeru yërmande nekk weeru njëggal nekk weeru tuub nekk weeru gural ca safara waaye nekk weer woo xamante ni ci la ñu am aljana yal yal defal ñu ko ñu leen di ndokkeel di ndokkeel umma islamiya bi yépp waaye ñu ngi tàmbalee nuyoo beeg ziyaara bi ci sunu maam euh, sunu wejur alxalifatul am muy maam Cheikh Ahmed Tidiane Sek di khalif général bu Canaba ñu ziarah koy di ko ndokkeel ñaan yàlla mu bàyyi ko fi lool ànd ak wér waaye ngi ñaanal sunu wejur wa Serigne muhtar sek yal na yàlla yokk te tànn si barkeem ñu ngi ziyaar mbooleem xalif généraux yi nekk ci Sénégal yépp ab fépp fu kilifa diine nekk rek ci àdduna bi ñu ngi leen di ziar di len ndokkeel tey nag ñu ñëw ak yéen ci benn waxtaan bu gàtt rek bëgg koo tënk ci euh, weer wi ñu nekk di weeru koor waaye bu ñu nee weeru koor nag bay bëgg a jeexal dina am fi xel yépp dem mooy guddi gu mooy guddi gu tedd mooy guddi laylatul guddi gi nga xamante ni weeru guddi gu tedd la pour waxtaane ko nag danañ taxaw ci ñetti tomb mooy euh, lan mooy laylatul qadr limaza sumiyat bi laylatul qadr lu tax ñu tuddee ko laylatul qadr beneen tomb bi danañ taxaw ci ay ngëneelam guddi gi yan ngëneel la am ci alquranul karim tom bi ci mujj nag mooy limaza uxfiyat laylatul qadr ban cause ban xikma moo tax ñu nëbb guddi laylatul qadr xam ngeen ni fan yi ñu nekk di fukki fan yu mujj ci weeru koor wi fan yu ama am solo la ndax rasulullah salawatullahi alayhi wa alihi wa sallam da ko daan dundal di def lu ñuy wax itikaaf ca jàkka ja itikaaf nag mooy nga beru yow rekk di wéetal sunu boroom di jaamu sunu boroom génn ci sa xol bi lépp loo xamante ni mbiru àdduna la moom rasulullah salawaatullahi alayhi wa alihi wa sallam loolu la daan def di nekk ca jàkka ja di ko dundal ba weeru ba weer bi feeñ mu génn dem këram kon dundal fukki fan yi mujj ci weeru koor wi dafa nekk li nga xamante ni sunna la waaye bokk na ci mustahabaat yi lu ñu sopp la bu ñu nee gudd leetul xadr nag kañ lay doon wala leetul xadr mooy lan alxadr ci luxa mooy asharaf fulaan fulaan zu sharafin fulaan zu xadrin ay zu sharafin mooy nit ku tedd mooy nit ku màgg mooy nit ku am honneur tudde na leetul xadr ndax guddi googu noonu ci la yàlla subhaanahu wa taala di programme jullit bi lépp lu ko nar a dal ci at mi ci ay wërsëgam ban bis lay dee lu ko nar a dal ci ay masaib ay balaaya mooy ay problème ay obstacle ak bànneexu àdduna yépp yàlla mi ngi koy programme ci guddi laylatul qadr tuddi na nag laylatul qadr ndax guddi gi boo ci jaamoo yàlla ba bët set mooy ëpp doole comme ki jaamu yàlla junniy weer guddi gi nag moo tax sax nee nañ guddi gi euh, dafa nekk biddaaya am jadid lil insaanil mu'min dafa nekk at mu bees bu tàmbaleekaay ci jullit bi ndax ci la yàlla di programme lépp lu nar a am ci at mi alquran nee na fiiha yufraxu kullu amrin hakim waaye guddi gi gën guddi la boo demee ci boroom xam-xam yi am na ay wuute waaye alquranu karim moo ñu ko jàngal alquran yu fassirhu baadu baada léeg-léeg benn aaya day ñëw beneen aayam moo koy firi boo demee ci alquran karim yàlla nee na inna anzalnaahu fii laylatul qadr alquran wàcc nañ ko ci gudd laylatul qadr nga dem ci beneen aaya ci surat mu ni inna anzalnaahu fii laylatin mubaaraka wàcce nañ ko ci guddi gu tedd gan guddi la ba léegi kenn xamagu ko waaye boo demee sootul baqara mu ni chahru ramadan allazi unzila fihi alquran hudan linnaas wa bayinatin min alhuda wal furqaan kon gis ngi suratul baqara fa la yàlla waxee ni guddi leetul qadr mi ngi nekk guddi ki nga xamante ni ci la ñu wàcc alquran karim waaye ban weer la mooy weeru koor boo demee nag ci borom xam-xam yi am na wuute moy kagn la guddigi waye lépp dañ koy delo ci rasulullah salawatullahi alayhi wa alihi wa sallam ndax mom yàlla nee ko dama wàcc ci yow alquran ngir nga lere nit ñi wa anzalna ilayka zikra litubayyana tubayina linnaasi ma nuzila ilayhim wa laallahum yatafakkarun mu deme ci riwayat ash-sharifa dañuy wax ni guddigi ñing koy séenu ci fukki fan yu mujjii ñépp dëppoo nañ ci rawatina bis yu tool yi kon ci la nekk ci lañ koy xool loolu nag am na ay wuute am na ñu wax ni dix-neuvième nuit am ñu wax vingt et unième nuit am ñu wax vingt-septième nuit am ñu wax vingt-troisième nuit am na ay wuute alquran nag ci la wàcc wàcc ci ñaari façon wàccin wàcc na ci nuzuluhu dufa wahida على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نزوله تدريجيا واتنا نعرف فصو واتنا نك بين لير لب تخوض رسول الله لولو ميغي نكون تي غدو ليلة القدر نزل به روح الأمين على قلبك لتكون من المنزرين لولو ميغي نكون تي غدو ليلة القدر ما إنا أنزلناه في ليلة القدر gis nga fi'lu maadi la nekk verbe passé kon wàcc na ba pare du wàccati loolu mi ngi nekkoon ci gudd leetul xadr ci weeru koor yu ñu nekk ci fukk fan yu mujj yi wàcc beneen wàccin nag mooy wàcc na tadrijiyan alquran nee na wa qur'anan faraqnaahu li taqrahu ala nnaasi ala muksin wa nazalnaahu tanzila maanaam xasabal ahdaas wal ixtijaajaat wal wal xawaadis maanaam ci la alquraanu karim wàcc maanaam wàcc na ndànk par ndànk selon circonstances yi ak problème yi ak situation yi léeg-léeg benn xew-xew am al benn ay wàcc léeg-léeg benn saxaabi ñëw ci rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam posé ko benn question alquraanu karim wàcc kon noonu la wàccee ndànk par ndànk kon ñaari façon wàcc yooyu moo am loolu la ko mu fassiruna yi tënkee waaye guddi gi gën guddi la guddi gi gën guddi la ci at mi gën guddi la ci weer yi guddi gi wax naa ko léegi mi ngi nekk ci guddi leetul xadr nekk ci weeru koor weeru koor di sayidu shuhur rasulullah nee na sayidu shuhur shahru ramadan wa sayidatu layaali laylatul qadr nee na weer wi gën ci weer yi sang weer yi mooy weeru koor waaye guddi gi nga xamante ni moo gën ci guddi yi mooy guddi leetul qadr lan moo tax ñu nëbb ko li maza uxfiyat boo demee ci borom xam-xam yi dañuy wax ni yàllaa ko nëbb comme ni mu nëbbee juróom yi ndax bu fekkoon ñëpp dëppoon nañ ci ne gudd leetul qadr génn guddi rek la ñëpp xam ko kon dina am ñoo xamante ni dañuy bàyyi bu guddi ko jot ñu fanaane jàmm sunu borom waaye yàlla da ko nëbb ngir bëgg jullit ñépp yitte woo guddi yépp di ci jaamu sunu boroom rawatina fan yi mujj yi nekk di guddi yi mujj yi rawatina bi si tool yi yàllaa ko nëbb comme ni mu nëbbee juróom yi yàlla moo nëbb ngërëmam ci mboolem taaxaat yi al amal as saaliha lépp loo xamante ni yàllaa ko digle te soo ko defee am ci tuyaaba amul benn jëf boo xamante ni yàlla ne na bii ci la sama gërëm nekk muy julli muy koor gi ñu nekk mooy dem màkka mooy jàng alquran karim mooy tuub mooy dimbali ci yoonu yàlla mooy saraxe muy dox mbokk muy seeti ko feebar yooyu yépp al ay mbir yu baax la waaye yàlla nee na ne nekkul ni bii ci la sama ngërëm nekk ngir bëgg nga yittewoo mboolem jëf yu baax yi ñaareel bi yàlla moo nëbbu mberam ci mboolem almaasi wa zunub mooy yàlla yi li muy bari bari bari yàlla waxul ni bii mooy yàlla ci la sama mer nekk ngir bëgg nga moytu mboolem mooy yàlla boo dégg muy rey nit muy sàcc muy naan sàngara muy njaalo muy lekk riba muy jël ak nit ñi mooy jëw muy tooñ yooyu yépp ay mooy yàlla la waaye yàlla waxul ni bii ci la sama mer nekk ngir bëgg nga moytandiku boole mooy yàlla boo dégg rekk nga éviter ko yàllaa ko nëbbu kom ni mu nëbbee soppeem ci biir nit ñi ngir bëgg nit koo gis rekk nga jox ko xorma jox ko respe jox ko cër ndax amaana mën naa nekk waliyun awliyaa illah te doo ko xam rabatina borom bubb yi woyof kon yàlla moo moo nëbbu soppeem ci biir nit ñi ngir bëgg nit koo gis rekk nga jox ko cër bul ko doyadal bul ko toroxal bul ko wàññi yàlla moo nëbb guddi leetal xadr comme ni mu nëbb ak nangoom ci mbooleem ñaani ngir bëgg booy ñaan nga ñaan ñaan yépp bañ a doyadal benn ñaan yàllaa ko nëbb comme ni mu nëbbee ismul azam mooy tur yàlla bu mag bi ngir bëgg nga màggal mboolem tur yàlla yi bi ci mujj nag moo yàllaa ko nëbb comme ni mu nubbee waqatul mawt mooy bis bi nga génn àdduna kenn xamul kañ la kenn xamul naka la yàlla neen fu nga mën a nekk rek dee na leen fa fekk ay na ma takunu yudrikumul mawt wala kuntum fi burujum mushayyada waxtu dee yàlla ko nëbb kenn xamul kañ la kenn xamul naka la ngir bëgg rek toujours ngay def istidaad di préparer bis bi nga xamante ni ci la malakul mawt di ñëw mu bañ laa bett kon juróom yi la yàlla nëbb ngir bëgg nga bàyyi ci xel moo tax mu nëbb gudd laylatul xadr ngir bëgg guddi gi nekk rek nga fanaane jàmm sunu boroom rawate na bis yu tool yi ngir mën a am guddu laylatul xadr kon bu ñu ñëwee ci li nga xam ni mooy ngëneelu guddi laylatul xadr dundal ko ci alquranul karim doona rek ñu ne guddi gi ci la alquranul karim wàcc inna anzalnaahu fi laylatul qadr ñu ko wàcc ci guddi ci guddi laylatul qadr karim ba tey guddi gi guddi gu barkeel la yàlla nee na inna anzalnaahu fi laylatin mubaraka wàccee nañ ko ci guddi gu tedd bu màgg ba tey ci ngëneeli guddi gi ci la yàlla di faramfàccee mbir yi ci lay programme lépp loo xam nit ki war na ko am ci at mi ci ay wërsëgam ak ci lu mu war a dund ak ci ay euh, xéewal yi war a am lépp mi ngi koy amee ñu ngi koy programme ci guddi laytul qadr ba tey bokk na ci ngëneelam guddi gi boo ci jaamoo sunu borom subhanahu wa taala yàlla nee na moo gën junni mooy ëpp yool junniy weer laylatul qadr xayrun min alfi shahrin te alfu shahr mooy mille mois te mille mois mooy juróom-ñetti fukki at yu tegal ñeenti weer wala ñetti weer yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nee na képp ku taxawal gudduleetul qadr nga dundal ko ci gëm yàlla ak sellal dana la jégal sa bàkkaar yi nga xamante ni moom moo weesu woon man qaama laylatal qadr imaanan waxtisaaban xufira lahu ma taqaddama min zambe ba tey bokk na ci ay ngëneelam guddi gi tanzilul malaaikatu ilal ardi bir rahma wal maxfira wal baraka wal maxfira malaayka yi ñoo ci wàcc ci kaw suuf di indi barke di indi yiw di indi yërmaande di andi njëggal bokk na ci ngëneelu guddi gi guddi gi léppam yiw la xaaliya min al ada wa char amul lu bon ci nekk amul lu lor lu ci nekk léppam yiw la léppam jàmm la léppam teraanga la salaamun hiya xatta matla'il fajri kon yàlla nañ ko yàlla def ñu fekk ko jàmm te kenn ku ne boo ko fanaanee jaamu yàlla li nga si war a ñaan mooy nga ñaanal sa bopp ñaanal say dëkkandoo ñaanal say jur ñaanal euh, ñi nga xam ne dañoo génn àdduna di ay jullit waaye nag ñaan bi ci ëpp solo rek mooy alaafiya ñaan yàlla may la jàmm defal la tawfiix yaan yàlla defal ñu ko fi ñu daanalee nag suñu kàddu mooy ban alaama ban màndarga mooy wane ni màndarga bii kat ci ngay amee koor gu nangu mooy kenn ku nekk na nga xool sa bopp su weeru koor wi jeexee na nga xool sa bopp évaluer su bopp bu fekkee na nga doon jaamoo sunu borom ci weeru koor wa dafa gën a yokk xamal ne yow sa weeru koor yàlla nangu na ko mais bu fekkee dafa jeex rek nga ne weeru koor wi jeex na weeru promotion la woon naa dellu ci la ma nekkoon ci wala ayaasu billaah di mooy yàlla topp sama bakkan topp àdduna xamal na yow sa koor gi wal iyaazu billah eh, yàlla nanguwu ko ndax koor li mu def ci yow mooy regal yàlla te yonent bi nee na sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ki texe di dëgg dëgg dëgg dëgg mooy ki nga xamante ni weeri koor wi jeex na te amul njëggalu sunu borom te yàlla bu ko jéggalul ci weeru koor wi beneen occasion la amaat mooy yowma arafa mooy bisu arafa te kan moo xam est ce que da ko fekkem déet kon ñu ngi ñaan ci yàlla weer wi ñu nekk yàlla bu mu nekk suñu mujj weeru koor lépp luñ ci jàmm yal na yàlla nang ko lépp luñ ci eh, ju juum yal na yàlla jégal ñu ko te nang suñuy saraxe nang suñu alquraanu karim nang suñuy amal yépp dalañ ko teeb at yu bare bare bari ñu ngi sant bu baax eh, monsieur Talla Diagne mi nga xamante ni mooy directeur Thiénaba 24 di ko jaajëfal ci liggéey bi yal na yàlla yokk tele bi yokk yëngatoom yépp bi jaahi rasulillah صلى الله عليه وآله وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته